ñaareel kon fa bi rabixat tijaaratuhum dégg nga lu mooy nag bu njëkk bi nekkaat fu màgg soo ko seddaa ci bu ñaareel bi kon ñaari bu njëkk bi yaaw xëccaan la boo ci bu ñaareel gi da koy dindi soo baa loolu dagal wala boog bu njëkk bi nekk xaaw sakt foofu am na ñu koy idgaam am na ñoo xam ne duñ koy idgaam gi nag waaye bu lott la boo xam ne nii dégg nga sukkandikoo wuñ mu bëgg laa xamal ne idgaam nag moo xam idgaamu ni la wala mutajaanisayni wala ni ñaari xaaj la yan qasmu day séddlu ko al idgaamu idgaam min haysu xarakati xarfi awali boo xoolee ci maska ak xarfu njëkk ba ilaa qismayni ci ñaari xaaj idgaam saxiir ak idgaamu kabir idgaam saxiir mu xaraf bu njëkk ba sukkoon bu ñaareel bi maas foofu benn liggéey rek a fa nekk mooy sukkoon nga ngay sadd ci bu ñaareel a xarafu njëkk ngay dugal ci bu ñaareel def ko sa sadd benn liggéey boobu la idgaam kabir mooy ñaari xaraf yëpp maas su boobaa bu njëkk bi da ko sukkoon dégg nga bu fekkee misleen ni la nga doon ko dugal ci bu ñaareel ñaari liggéey la bu fekkee du misleen ni bu njëkk bi da ko sukkoon changé ko mu yore xarafu ñaareel ba dool ko cee dugal mu am ñetti liggéey waaw al idgaamu saxiir an yakkoon mooy mu nekk alxafaani ñaari xaraf yi mutamaasilaani di yemoo wala mutajaanisaani wala mutaqaaribaani awaluhuma bu njëkk bi saakinun dafa sukkoon wa saani ñaareel bi mutaxarik maas way summee tireen ko saxiiran idgaam bu ndaw li ànd naa ndax ñun ñu du xamoo dañ ko idgaam mubaasharatan direct dégg ngeen ma bu njëkk bi sukkoon bu ñaareel bi maas da nga ko ci dugal direct loolu idgaam saxiir la ay idgaamul kabiir موي لان موي ان يلتقي مدجي العرفاني نيار عرفي مو خم متجاني فاني متقاربان يب من نادهم كبير فيكون منك اول غنجتي متحركا دماغ وثاني نيار بكذلك كم الماس وسميت لنكو كبيرا كبير نعلن لاننا نحن نسكن دليل سكون بنيك wanu du xam mu ñu ko koo idgaam ci bu ñaareel bu fekkee mutijaani san la wala mutaxaaribaani sa moom dangay sukkoon bu njëkk bi changé ko mu yore maska xarafu ñaareel nga dëgg ci dugal kama fi misleeni kabir comme ci misleeni kabir mooy ma bayna ñaari mim daje nañ léegi mim gu njëkk dañ koy sukkoon door koy dafa muy yaalam ma bayna suusi mooy jàng loolu dégg yaa lam maa bay na loolu kabir la ndax sukkoon bu njëkk ba pare doo ko idgaam ci bu ñaareel aw mu sakkanu sax wala ñu sukkoon ko nuqala bu bi xaraf ko mu yaa xaraf bu ñaareel doo ko idgaam mu ñetti liggéey kama fi idgaam mutajaanisayn aw mutaqaaribayn wa idan nufuusu zuwijat siin ak zaay xam nga ñoo bokk fi ñu génn jàllaama bi suuf léegi nag siin bi dañ koy sukkoon ba koy def ko zaay doo ko ci idgham mooy wa idan nufus zuwijat ñetti liggéey la siin gi sukkoon nga ko def nga ko zaay door ko idgham ci beneen zaay wax wa idan nufus zuwijat loolu mooy idgham idgham boobu waaw ma idgham kabir waaye idgham kabir وإمام إدغام الكبير نجيت الإدغام كبير هو القائل وجان كد سوسي انا أبي عمرو البصري سوسي انا أبي عمرو مام إدغام كبير فقد توسع ياتنا في هذا الباب بنت بي كثير دبل دبل دبل ومن أمثلة ذلك بكرة مثال في المتماثلين في متماثلين الكبير إدغام متماثلين الكبير في كلمة واحدة اللي منك في بنبات اللي منك في نار بات بكرة مثال في كلمة واحدة بعد تبادي ركز لغير baat yi kese suuf si baat yi kese ci alquran benn baat la mu ne manasikum ma salakakum mu ne ma salakkum xasran dama laa takkal baat yi ñu mu indi naan yëpp ñaari baat yi yooyu suuf si daf koy def idgham kon idghaamu kabir ci ñaari xaraf yoo xam ne benn lañ ci benn baat ñaari rek la manasikakum ak masalakkum manasikum masalakkum fa laysa ne kulli suus yi ñeel suus yi idghaamu misleeni idgham ñaari yemoo kabirin bu mag fii kalimatin waaye ci benn baat illa fi atayni kalimatin lu may ci ñaari baat ñaari baat yi rek da suuf si def idgham kabir اللي بعده وفي كلمتين لك بلاش نعرف يعني باب كمون برين ورق تقوه اللي حصل يعلم ما بين أيديهم يعلمون مودي يا موسى مودي يا موسى مودي يا موسى لا أبرح حتى فأبرح حتى أبرح حتى أتبع على قلوبهم تعرف في وجوههم فيهم المنكر في هدى طبعا على قلوبهم تعرف في وجوههم فيه هدى يبقى إدعام كون جوخنا misaal idgham mislayni ci benn baat wax ñaari baat yi ñëw ci alquran joxe misaal yi idgham kabir la ñu koy def euh, waaye ko def kon wara na ne idgham ñaari xaaj la idgham kabir ak saxiir bañ ca jàngale ay attem yëpp nag ci kabir ak saxiir mooy mislayni mooy ñaari xaraf ne benn lañ jàng nañ kañ lañ leen war a idgaam ak lan mooy tax duñ leen idgaam ak ñen ñoo leen idgaam bu dee saxiir ñëpp la bu dee kabir suus yi la dégg tey ñu ngi ñëw ci yeneen xeeti idgaam yi an waaw idgaam xeeti idgaam awalan bu njëkk idgaam mutamaasile ida woo moom an yeltaqi mooy mu daje al harfaani ñaari harf al mutaxidayn yu bennoo maxajan ci génn waay wal mutafaqayn yu dëppoo sifatan ci melo ñaari harf yoo xam ñoo bokk génn waay waaye bokkuñ melo léeg-léeg ñoo bokk génn waay bokk melo mën a ñaar yoo xam ne benn lañ rek comme ñaari mii ñoo bokk génn waay bokk melo waaye kon mu nekk awul bu njëkk bi saakaran bi sukkoon wasaani ñaare ba mu taxarik di maas loolu mooy daxaam mutamaatirin bi comme fama rabihat tijaratuhum fala yusrif fil qatli rif ñaari faala a ñaari taal bu njëkk bi sukkoon bu ñaareel bi maas kon bu njëkk bi dañ koy daxaam ci bu ñaareel bi jeexal lañ buntu daxaamu mis léegi te ñu ñëw ci dafa am mutajaanise mooy lan mooy ñaari araf yoo xam ne ñoo bokk même génn waay waaye dañoo wutee ci lenn seen i melo même buñ bokkee yenn melo yi sax wutee nañu rek mutajaanise bi boobu moom an yeltaqee mooy mu dajeeg al arfaani ñaari araf yi al muttafiqaan yu dëppoo fil maxrij jigéen waay wala muxtalifaan yu wutee ci baax di sifaat lenn ci melo wa yakun mu nekk mu nekk alawalu bu njëkk bi saakinan di sukkoon wa saani ñaareel mutaxarikan di maas ñaari araf yoo xam ne nii ñoo bokk benn génn waay waaye bokkuñ mela yëpp dañoo wutee ci lenn ci mela yi bu njëkk ba sukkoon bu ñaareel maas kooku mu tajaani seeni la waaye saxiir la dana ni mu tajaani seeni kabir comme way dan nufuus zuwijat hmm? dégg comme mu tajaani seen am na saxiir kabir de bu njëkk ñaar yëpp maas kooku kabir la bu bu njëkk dafa sukkoon bu ñaareel maa ko saxiir la moom nag saxiir lay jàng la parce que moom la borom xam-xam waa di ibaara xalam bii mooy ñoo bokk yéen waaye waaye wutee yenn melaw zakaratul ni ko Cheikh Abdul Aziz yoonu suud rahimahullah yaa ko yàlla yaram ndax faka kaar nekkoon al musanif al musanif na taarifkat yi yaquloon di wax annahuma ne ñoom ñaar yaxtalifaan dañuy wutee fii jëmee sifaat ci boolem mboolem yi fekk demee wu noonu dinaa woon idgaamu mutajaariseen yi moo ñoo bokk yéen waaye wutee melo yëpp déedéet fekk nañu wutee yenn melo rek bi bokk na yenn boo yokk tamu dañ ko séddale ilaa qismayni si ñaari xaaj idghaamu mutajaanisayni idghaam ñaari xeetoo kaamil yu mat ak idghaamu mutajaanisayni idghaam ñaari xeetoo naaqis yu wàññeeku idghaamu mutajaanisayni dafa am kaamil ak naaqis xam nga mis leeni moom kaamil ngeen ci gis mu kaamil bu may ni jaar fu njëkk dugal ko ci arfu ñaareel mu jël léppam naaqis nag mooy arafu njëkk bi dafay dugg ci arafu ñaareel waaye leen ci ci a arafu njëkk bi dafay day des mutajaani seen dafa am idgaam mutajaani seen i kaamil am idgaam mutajaani seen i naaqis afahimtumoo ni seen i kaamil nag ci araf yi lay ñëw nga jël taa bu ubbeeku dugal ko si ab taa'u comme la hammat taifatun dégg nga boobaa kaamil nga def la la ham map taifatun nga dagg melam bi carrément jëm taa ci biir too kooku mu tajaani seeni la kaamil la ndax taa gi day dugg ci too gi meloom bi dem xarafam bi dem wala daal ci taa comme xat tabayyana xat daal gi lépp a dee wala taa ci daa ci daal azqalat azqalat lat daal bi nga taa gi da nga ko dugal ci biir daal hmm? ci daal wala daal ci taal yooyu safaan bi amma fee moom taa ci biir too amma too ci biir taal moom kooku moom ka naata lay doon dana fi dégg bu mujj bi mooy zaal ci va إذ ظلموا إذ ظلموا ذال كده نكون دوغل جبيت بعد مين تعرفي مين تيلا إدغام متجاهي سيري كامل ديام تا تبي تو دال تا ولا تا تي دال ولا ذال تي ظا مودو إدغام متجاهي سيري كامل وإدغام كامل هو مما مي بيخمز ذهب دمنا فيه ثم رحل فعرف بيت المدغم بني إدغام ذاتن سي جيمم وصفتن اك ميلوم لب مو دوغ كوغ نينت لا ويقون لا تاب سي نينت انام سي تو سي تا بو دوغ سي بي تو كوم لا هم مفائفتن ولا دال كي تا كوم قد قد تبين ولا تا سي ما ني كونتري فوف كوم قد كوم اسقلت داو ولا ذال في ذا في ذا كوم اظلموا kooku ilal mutajaani seen la sax yi la waajib fu ñuy wax mooy quraaw yëpp koy jàng kon lii quraaw yëpp ñu koy jàng hmm? fu ñu la jaayis nag ci quraaw yi ñoo koy jàng fu ñu la ci quraaw kon idgham muta jaanisayni kaamil si ñeenti yi la la ci xuraaw yi dëppoo taa ci too daal ci taa taa ci daal ak zaal ci zaa bu dee nag xeeru kaamil la wala boog dégg nga kaamil boo xam ne xeeru waajib la lii la baa ci miim kooku ñu koy idgham xam nga baa ak miim baa ak miim ñu koy idgham نين لا واي كامل ان كم اير كم معنا كو مختلف مدي ودي في مو بين القران مود ادغا مود جاري سي لا صغير كامل واي غير واجب بور باسكو نييب كاي جان اك سا تي زال كم يل هذ ذلك يل هذ ذلك تاج نلوك زالي ام نيو كاي داف كامل غا واي مختلف في لم تي بين القران ديغا دي جان كاري موتا مو كامل لا غير واجب خمنا نوفي comme dafa amoon ci seeni kaamil ba pare ñëpp di ko jàng mooy daal ci taa wala taa ci daal xam nga yooyu ñaari contre yëpp wala taa ci biir too wala zaal ci za yi nga xam ne ni nag ci dafa am mutajaani seeni la ñu bokk génn waay waaye ñëpp duñ ko jàng kaamil la gaa ñëpp duñ ko jàng mooy baa ci biir miim wala saa ci biir zaal fentu mu ñëw ci idgham mutajaanisayni naaqis yooyu benn la xam nga waxoon naa taa ci biir too ku kaamil la ñëpp koy jàng amma too ci biir taa kooku moom idgham mutajaanisayni naaqis la melo too gi da nga ko andi la ñoo jàngal naan la ahat too da nga bàyyiwaale xel mooy taa ci biir taa kooku naaqis la idgham mutajaanisayni naaqis la idraam bu tajaani naaqis boobu moom idraam xarfum qawiil sifaati mooy nga dugal xaraf bu dëgër melo bi àqara ci beneen adaafu bu a lott dina ci moom a si tabqaa mu des asifatu qawiya melo wu dëgër wa zaahira di fenn melo bi xaraf bi nga xam ne moo gën a dëgër nga dugal ko ci xaraf bi néew doole xaraf yi gën a dëgër nag meloom dafay feeñ fa zahaba mu dem zaatul xarfil mudgaam jëmmi xaraf bu ñu idgaam wa tabqaa mu des hadi kalimaat baat yi ala sabil ñetti baat rek la ci yoonu takk ñetti baat yi rek moom idgham mutajaanis naat farat rabtum axadtu basattu léegi nag booy jàng it baax gi ci sukkoon gi ngoy booy jàng booy sukkoon rek da génne melo ba waaye booy jàng masque ba nag nga génne melo infitar ñetti baat yi kes la ñoo am xam nga ne wax booy idgham idgham fiyaa ci mu mutajaani seeni la saxiir bu ndaw naaqis bu wàññeeku waaye waajib dafa war kon xuraaw yëpp koy jàng kon idgham mu mutajaani seeni kaamil yi ci xuraaw yi dëppoo ak mu tëjaani seen i naaqis yi ci xuraaw yi dëppoo te jaaree bi jox na la ko fële nag moom xaraf yee bu dajee la. dégg bu defee nii yii nag saxiir la parce que bu njëkk dafa sukkoon bu ñaareel ne maas fa too too xarfun xaw yi xarfu la mutbaq gémmiñ gi day bu kawe. kàddu bi ci kaw la jëm amma taaw fa xarfun daifun xaraf bu lott la wala yesu du wér idgaamul nga dugal bu dëgg bi bi daif bi ci lott yi def nañ ko gaa waaye melo dañ ko faa ba melo si melo dëgër ga li hada li moo tax nutbiqu dañuy dëpp ala toy ci taa maanaam ci taa gi ngay génne melo itbaq bi wanul xi ñu neenal alxalxala te xalxal ga doo ko génne wa naftaxu ñu ubbi ala taa yi ci taa taa na melo in fi taa gi maa ibqaay sifatil isti'la ànd ak desal meloo kawe gi wa itbaaq ak itbaaq gi fi tooy kon su ko gis nga jàngal la i dafa am mutajaani seen saxiir bi la jàngale woon saxiir bi ñett xaaj la ko xaaj kaamin waajib mooy ñëpp koy jàng taa daal daar ak taa taa ak too ak ak za kaamil xeeru waajib mooy ñenn koy jàng ba miim zaal saa zaal naaqis boo xam ne ni waajib la yooyu mooy too ak taa ñetti baat la ñëw ci alquran ñetti yi la ko séddal muy dugg nag ci idgham mutajaanisiin kabir kooku suuf yi koy jàng parce que xam noonu waaye suuf koy jàng wala nan sa bul fàtte rek buñ fàtte xawoon naazim wax waykat fi maa sabax ne wa bayin na nga leer ay itibaq fi axattu ma basattu loolu waxoon na ko ci gannaaw wa min amsalati mutajaani seeni kabir bokk na si misaal mutajaani seeni kabir wa idan nufuus zuwijat idgham mutajaani seeni kabir kaamil la waaye xëy waajib ndax xam nga ne suuf si rek ko jàng أفمن زحزح عن النار حقك ها آه، نبوكين وين ولين غني فمن زحزح غني فمن زحزح عن النار حاجة نقول فعين أك والحرف والحرف ذلك والحرف ذلك والحرف ذلك يبقى منا غير واجب وهي متجانس يعني كبير لبس نهاية على جسد فبات إذا مكامل هو وما ذهب مؤلم في جمع الحرف المدغم ذاتا سجمم وصفة أكبر إذا ناقص هو إذا حرف قوي صفاته من دوغ الحرف ودغر ملو داخل في بين أداء منه بكو غن لوت باش تبقى مدس صفة قوية من ودغر ظاهرة لفين فتذب مدم ذات حرف جمع الحرف المدغم من إذا غام وتبقى مدس صفة ملم تي طاء تالي نيو دي ah mattafaqa la lépp mën a aale ci moom kullu quraa yi lépp borom jàngkat yi loolu mooy idgaam waajib waaw man jaayis idgaamu jaayis foofu moom maxtalafa mooy nga xam ne wuute na al quraa jàngkat yi fi di jaan ceeb bi ci moom suñu waxee bii waajib la rek mooy borom xam-xam yëpp ci dëppoo noonu lañ koy jàngee jaayis la mooy ñeen na koy jàngee buñ ne kaamil la mooy xaraf bu njëkk bi dugg ñaareel ba ci jëmmam ak ci melo buñ ne nag naaqis la mooy xaraf bu njëkk bi dafay dugg ci bu ñaareel mooy xaraf bu njëkk melam day des xam nga jaaxle naa leer na idgaam ndax idgaam mu jaay tey mu def bu ñetteel bi mooy idgaam al mutaqaari bayni هذا يريد الإسلام والصلاة والتوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته